wala Cour suprême euh, confirmer euh, le tribunal de grande euh, instance et donc Ousmane Sonko est candidat. non bu fekkee bu fekkee. Euh, la Cour suprême rien ne l'empêchera. non ce qui m'étonne non ce qui m'étonne ce qui ce mais si la Cour suprême confirme la décision de de de Ziguinchor mais il est il est réintégré sur les listes. Et, et, et, il devient électeur. et éligible. Et rien ne l'empêchera. oui de, ça ça de de sa fiche de parrainage. bien sûr euh, parrainage moom daf koy daf koy am. non il sera sur les starting blocks. c'est une situation qui vous qui fait peur. politiquement vous voulez dire. absolument pas du tout. ah bon absolument pas. c'est ça. ab ah, son homme politique. c'est pas un candidat sérieux. C'est un candidat, oui. C'est un candidat sérieux, oui. oui effectivement. C'est pas un, un candidat non, qui non, c'est un candidat sérieux, mais ce n'est pas, pas un candidat qui peut nous empêcher de gagner l'élection présidentielle bi ah bon gisuma tey man gisuma fi benn candidat yaa naa bu fay nañ ñëwaat après nañ ñëwaat tout à l'heure sur les différentes demandes de liste là de parrainage deux cent et quelques personnes yu dem demande seen candidature loolu foo ñu wax ci bu baax ba ma maa ngi ñëwaat si point boobu foo ñu wax ci non d'abord sur Ousmane suma sama candidat suñu candidat ñun waa benn bokk yaakaar muy Amadou Ba premier ministre Amadou Ba déjà sénégalais yépp nangu nañ ne aujourd'hui c'est l'homme qu'il faut pour le pays parce que c'est l'homme qui incarne Sénégalais ban ban ban baromètre la am baromètre am mooy. ah toutes les qualités. non non non non non laa expliqué. non quand tu dis sénégalais yëpp. ban sénégalais yëpp man naa la wax naa la wax mais dama génn ci mbedd bi yaa ngi gis ay ay ñoo xam ne sax bokkuñ sax. APR wala bokkuñ benn. boo génnee ci mbedd bi tamit. non xaaral ma ma wax. xale yi boo génnee ci mbedd bi daal eh may mun a eh, bàyyil Sonko. waaw non surtout eh may mun a bàyyil Sonko. waaw non Sonko mooy suñu candidat ñun Sonko la ñu Sénégal neex for fu neex mais te dañuy xool dañuy wax dëgg rek dañuy wax dëgg rek yàlla tax koo xamante ne posture am jaar-jaaram ak posture ak lu muy incarné ci il rassure bu la neexee nga for ku la for faral ku la neex bu la neexee bañ a faral Amadou Ba mais ñëpp d'accord nañ quand si c'est quelqu'un qui rassure fi seen fi réew mi jëm bokk na si Sénégalais yi ñu gën a yaakaar mu teel ñu teel ñu suñu réew parce que Sénégal du ay caaxaan Sénégal du caaxaan de dañ ko tabax ay mag ñoo si xeex tabax ko ba réew mi toll fu mu toll nii tey jii donc xam naa ne Amadou Ba aujourd'hui premier ministre Amadou Ba tey man gisuma benn candidat boo xamante ne mun na ko battre aux élections prochaines. la loolu dafa dafa c'est évident. parce que am mu am kenn amu ko. xam nga euh, mu am kenn amu ko en terme de personnalité et en terme aussi d'appareil Moussa en terme de nombre de responsables politiques yi engagés derrière lui et au-delà même la politique c'est ça son avantage